Baye Max la yéen a ngi fàttaliku na. déedéet ndax xam ngeen lu ko gàttal. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que daa woote lu nit ñi am. gis nga tey jii théâtre gis nga. gis nga bi théâtre. am yoo xamante ne ñu ko nit defloo nga yut bës may ma tuuti ndax xaalis wala nga wala nga ko. mooy sa carrière luy gaaw gàtt la maanaam ñi de publicité la soxla parce que da nga yàq seen produit. Euh, fa góor yi daje ak nit ñu baax ñi daje duñ la fa parce que. amul fenn ci Sénégal amul kenn ku gis ci Azou le ñetti film la ñeenti film la jot def sax anam la sax gennul kon donc bo toogee nan diw dafa def ñetti leg ñenti lay ba mu defee lee la la gëj xew le gëjë genn yow mi xew yow mi éternel yow mi continuer à vie jëlal man dafa am lu may jaar marqué ko paré ci tourner passe bobu dafa am ñu bari nak yo xantini balang koy nga koy expliquer teg ci deru gor dang koy xalaat man xawma la xaw ma la Mouhamed Ndiaye mais xam naa lu bari ci yow te nag du menace mais avertir la gis nga boo bu ma toogaatee dégg ñuy wax dara dem mbirum góor jigéen nga wax ba boole ma ci man Mouhamed njaay boobaa di nga dégg piir ndax loo yaakaar nit xamu ko rek nit xam na ko na patt ak moom il faut qu'on arrête permettez man comment respecter Je wul man ma respecté sama Je man damay xaar ñu félicité ma ndax li ma def ku nga am xel nga félicité ma ana Je tok di kaas ñaata Je la Je ci di Je Je ci Je ñaata Je la ci Je fukki Je ak la Je di mais pourquoi pas yéen mun leen a wax ñaata aaya la yàlla wàcc ci ku teg der doom aadama te amoo ko leer lu am ndey lu ne am na baay yàlla dafa wàccee aaya bi rëbb góor jigéen mais wàccee na aaya rëbb ko jël teg ci der doom aadama te amoo ci lu la leer da leen bàyyi di gàkkal doom aadama toog ci tele am envie wax rek topp ci deru nit di wax te boo ma gisee respecté ma man ñakuma fay daya lambar lambar yiw bokuma ci association bokuma ci ONG bokkuma ci lobby bokuma ci ben bokuma ci dara je me débrouille toute seule Top fa ma Luma lu toute am amal sama bop luma ma muñ Je suñu borom mais da ngeen di tok japp nit di pousse diko à la fin do comprendre non tout c'est trop te permettre wu ma la yow Mouhamed Ndiaye ngay waxati sa xaw ma nu mu tuddati sax émission boobu di ma joxe man comme référence man da may joxe référence ci lu baax yow ak Lamine ak kii Pape Faye day leen wax nit ci nit lu rafet.